non bettuñu amul lenn luñ ci bett xanaa sant yàlla parce que yàlla mooy may. nous remercions le bon Dieu pour cette belle victoire cela ne nous a pas surpris parce que nous savions que nous étions majoritaires dans ce pays et voilà le résultat. la ñuy compter te xam nañ ñun ñoo ëppale ñun ñoo ñun majoritaire daal ci ci dëkk bi donc voilà quoi. non loolu bettuñu ah loolu bettuñu parce que nous tous nous savons que Diomaye euh, On était convaincu que Bassirou Diomaye Faye serait élu cinquième président de la République. On n'a jamais douté là-dessus. C'était prévisible qu'il serait élu dès le premier tour. xam-xam xaju si bopp golo noonu la fa demee dañu xamoon nañ ko bu yàgg xamoon nañ ne Diomaye fay sera le cinquième président dès le premier tour. wax dëgg yàlla man moom xaw ma nit ñi waaye man moom dama fanaanoo jooy bu ko set ndax. Moi, j'ai passé toute la nuit à pleurer de joie parce que j'ai souffert pendant des années. Mais maintenant, tout est fini. Je suis très content. ndax amoon lu ma metti trop trop trop ba ca kanamu yàlla léegi naqar ba nga xam ne moom laa doon dund avant démb ñëw bànneex ñëw moo waral démb jooy démb yi. ah xanaa dama kontaan. loolu lañ doon ñaan yàlla comme yàlla def na jàmm élection bi jàll na ci jàmm te bakken euh, rotul. Je suis très contente. C'est ce qu'on priait et tout s'est passé dans le calme et dans la paix. Hier, j'ai même dansé. nee naa leen ah jal bu yàlla jal mu jal jali boo jalul mu jali xale yee jal